alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk taalibe yi man la seen mbokk Cheikh Abdourahmane Ibrahim Niass mi nga xam ne moom la imam Cheikh Tidiane Ali Cissé dénk uh, mbiru naafila alquran ki nga xam ne moo koy def di Cheikh Tidiane Ullo Rabbani nga xam ne mooy yore wàllu naafila gi addiyam giñ ko war a jox te imam teg ko ci suñ loxo mi ngi fàttali mbokk taalibe yi numéro bii nag mooy numéro biñ ko mën a yónnee muy 77 634 12 45 képp taalibe boo xam ne bëgg nga joxe sa barkeelu ci addi bi rek mën na jaar fii numéro bi orange money la ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant di ñaan yàlla mu musal ñu te sàmm ñu te wëttuñu te yokkuñu jërë ngeen jëf wasalaam